salaamaaleykum maa ngi tudd Hortense Mendy euh, nekkoon candidate euh, Miss Manjaak 2017 euh, représenté woon nag Ziguinchor waaw moo leen mboos beeti ñi ma njàkku indi bi léegi tuub moo leen mboos anja Hortense Mendy man ci na njaku katij ji nacarum ba ñaan Casamance élection Miss Manjaakal piyekal waaw Euh, Miss Manjaak communauté la euh, Miss Manjaak doon na loo xam ne euh, day boole askan wi maanaam njaago yi parce que du ma ne défilé bi mais xamante bi ñu xamante suñu biir rek moo dàq mën naa ne moo dàq sax ñu ne la gañe nga. waaw commencé nañ ci présélection yi hmm, Ziguinchor amoon nañ présélection présélection yi tamit neexoon nañ torop comme li ma wax léegi rek xamante bi daam moo dàq euh, ñu ne la yow yaa gagné ndax foofu noonu euh, jotoon nañ gisee avant défilé bi euh, doon nañuy waxtaan ñun entre ñun mais miinante woon nañ franchement si jour bi mën naa ne sax du doon compétition mais de doon entre sœurs ñu ne ku gagné rek baax na waaw ba may ñëw nee nañ ma su ma ñëwee daal ma dal su may ñëw ma dal ba pare ma am confiance ci sam bopp daal parce que xalaatoon nañ ni que mën naa kaa jël su ma ñëwee euh, moo tax newoon nañ ma boo demee euh, soit courageux nga nga takk sa fit daal parce que mën naa ne képp kuy dem xeexi rek loolu lañ lay wax euh, ba ma ñëwee cëpp si Dakar sama xel bi dem na ci défilé bi mais tamit sama xel dem na tamit ci victoire parce que dafa neex Euh, jóge Ziguinchor ba fii nii ñëw jël ndam li yóbbuwaat ko loolu dara dàq ko ko waaw regroupement bi neexoon na trop sax regroupement bi neexoon na ba bëgguñu woon sax euh, bëggoon nañ sax benn instant dañoo bëggoon ñu ñu euh, ñu poussaat défilé ba ci kanam ndax kër gi neexoon na li ñu doon dund ci kër gi franchement parler dañoo meloon ni comme ay frères et bien vrai que rencontre lañ moo ñu boole. défilé Miss Manjak moo ñu boole mais ba ñu ñëwee ba nekk foofu ci kër gi meloon na ni comme si ñoo bokk ndeeg baay dañ doon ànd dañ doon kaf di ree guddi sax pour nelaw problème la ndax waxtaan neexoon na torop moom ba ma yeewoo fajar euh, sama xel bi jubal na Ziguinchor directement parce que euh, dama kontaan daal le fekk ma dem représenter grande finale bi euh, ma nekk candidate Ziguinchor Dakar ba Ziguinchor dafa sori torop Euh, cinq minutes eggu fa taxul sax nga yegg foofu moo tax bu ma xëyee sama xel bi dem na si waa Ziguinchor dem na ci sama yaay dem na sama papa ma kontaan trop nag euh, balaa may egg foofu man ba ñu wooyee sama tur ci Miss Sympathie rek damaa kontaan soxlawuloon sax euh, ñuy egg fële ndax sama xol bi seddoon na rek bu ñu ma woowee ci Miss Sympathie parce que dafa neex nga nekk ak say morom ñu ñu def ñu ñuy voté parce que vote bi c'était entre nous. <laughs> Miss Sympathie mun naa ne que c'était mooy la plus folle de la maison daal mun naa ko jàppee loolu <laughs> parce que euh, parce que bu ñu nee Miss Sympathie cest à que dañuy fal kër gi Miss boo xam ne moo fa gën a ouverte moo fa gën a ouverte euh, te franchement parler man du question de ouverte sax mais su ma nekk ak sama morom damay free damay kontaan parce que dafa neex nga toog gis say morom ngeen di waxtaan di kaf di foo di ree bañ ma tegee couronne bi Euh, mën naa ne lu gën a sedda sama xol mooy sama morom yi bañ daw see ñëw kott ma ñoom ñëpp c'est-à-dire que ñu doon wax ci kër gi euh, jafe nañ ko ndax wane nañ ni franchement parler euh, ku gagné rek baax na parce que nous sommes des sœurs parce que gis naa bu ma joxee couronne bi ñoom ñëpp nuñ daw see ñëw kott ma pour dire la vérité sama yaram bi daa daw moo tax jooy naa bañ ma woowee mën naa ne tamit sama yaay laa njëkk a xalaat waaw parce que mi ngi woon ci biir foofu bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw ñëw na seetaan si ma biñ ma woowee nag xalaat naa ko kontaan tamit xalaat naa sama morom yi parce que dañ doon nekk gañe baax na ah, sama xel si ñoom la dem moo tax euh, j'avais pas les mots daal euh, pression bi ça va kii woon na parce que tamit mën naa ne tamit bi ma défilé ba pare xawoon naa am confiance tuuti parce que boo boo yéegee ci podium bi euh, défilé ba pare di nga xam yow mën ngaa mën naa ne benn instant mën ngaa xam sa position parce que boo yéegee dinga xam loo def Mm, mën naa bañ a ne miss mais mais nee naa xalaatoon naa dinaa bokk bopp ñu nekk ci kaw podium bi waaw ah, mën na nekk tamit parce que même pas loolu sax mais ki yoroon micro bi micro bi muy wax ci kaw euh, bi muy ne la la miss de cette année sera euh, gars yi ñu ngi ñu ngi ñu nekkoon ci suuf ñu ngi doon numéro 4. <laughs> man loolu ma doon reetaan lool sax ci biir parce que mën naa ne sama stress ñoom ñoo ko dàq parce que même su ma gañewuloon sax mais gis naa ni am na ñoo xamante ne ci biir amoon nañ espoir que ni man maa koy jël parce que kooku bu muy ne numéro numéro ñoo ngi nekkaat ci suuf saa yu ne numéro ñu kaat ci suuf ma kon bu ma ko jëlaloon sax euh, sama xol bi seddoon na ndax gis naa ne am na ñoo xam ne ci suuf amoon nañ kontaan nañ moom kontaan nañ trop parce que bu dee waa Ziguinchor mënuñoo ñëw ba fii ndax sori na trop mais journée bi yëpp ñu may woo si ba ngoon sama téléphone coupé wu benn yoon kii su coupé keneen woote loolu mooy waa Ziguinchor mooy loo xam ne mooy seen wàll ndax ñoom Ziguinchor daa sori pour suñu waa kër ba may ñëw fekk naa nag ñu fees foofu dell accueil nañ ma accueil bu rafet euh, kontaanoon naa torop nag ndax bu ma ñëwee fekk naa suñu kër ñu fees dell ma ñëw ñu accueillir ma accueil bu rafet euh, sama maam yi sama yaay sama tataay yëpp ñu may feccal euh, comme sama xol bi seddoon na trop mën naa ne waaw waaw mën naa ne instant bii man loolu rek laa bëgg parce que euh, défilé bi mën naa ne défilé ba léegi ñu ngi may woo sama waa classe yi sama waa yi gars yi yëpp ñu ngi may woo di ma naan kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw dinaa ñëw nag di leen wax bu ñu yàqamti maa ngi si yoon waaw mën naa ne pare naa bu baax sax bu baax ndax du ma ne pare kese mais mën naa ne pare naa bu baax a baax a baax ndaxte bu ma buñ déggee formation emploi et employabilité des jeunes ça concerne les jeunes kon nuñ ko waxee nii parce que euh, mën naa ne nii comme bu ñu ne employabilité des jeunes euh, chômage bi dafa bëri looloo tax tey thème boobu dafa concerné dafa dafa kii bu baax dafa coïncider bu baax ak lu jeunes yi di dund daal parce que diplômé yi boo gisee surtout au Sénégal fii nii comme ni ma ko waxee ci thème bi diplômé kese ñoo nekk fii nii Euh, di chômer comme thème bi dafay am solo bu baax ñu développé ko euh, ñu liggéey ci bu baax a baax euh, xale jigéen yi ragal ba leen wax lii Miss Manjaak communauté la Miss Manjaak c'est une famille du doon compétition bu kenn ragal boo ragalee rek daa fekk ñëwoo boo ñëwee rek gis lu nekk ci biir dootoo ragal parce que mën naa ne ñun ñi ñëpp ragal bi jaar nañ si mais boo duggee ba si biir rek ragal bi dina jeex xamante bi moo dàq lépp boo leen ñëwee parce que ñun ñëw nañ ba si biir amul benn miis buy ne ragaluma mais ñun ñëpp ragal nañ mais jom ak fit moo ñu fay andi jàpp ni ñun euh, communauté Manjaak bu avancé rek ñun ñoo koy avancé loo du keneen parce que ñun ñooy Manjaak ñun ñoo rek ñun ñoo fier ci lu ñu doon may wax jeunes yi nag bu lay ragal ñëw leen venez découvrir loolu laa leen di wax. Euh, may wax comme comme question bi ma posé léegi naa ci sawar tontu parce que. Euh, autorités yi ñoo am wàll ci lu bëree bëree parce que ñun Miss Manjaak non seulement soxla nañ autorités yi euh, di ñu dooleel euh, di au point financière wala moral ak lépp soxla nañ leen suñu wet daal kon comme nuñ soxla autorités yi noonu lañ soxla ay sponsor parce que ñun Miss ñun waa Miss Manjaak franchement parler soxla nañ ko ñu yokk doole daal soxla nañ ko bu baax. ñàpp si u caak u caak Sénégal. yalpu jau chak bilengu tu depende pujirari paski banya miss manjak bueli no lempo o lempo imme mankapu formir o euh, pachi manjako ati euh, euh, kajak formation emploi et employabilité o pachi manjongal pujenda depende pujirari paski mfirwal mabaraninde beitinye manjako Euh, sama dernier mot yi mooy que ni pour commencer je vais commencer damay commencer pour remercier par remercier ah mooy organisateur yi Miss Manjak yi parce que seen initiative dafa rafet lool may remercier sama yaay parce que moom. tey bu nangul woon lii duma fi yegg si may remercier sama mbokk yëpp di remercier waa Casamance parce que tamit mën naa ne tamit loo tax ma yegg si fii ndax falaa laa commencé waa di remercier waa Dakar euh, remercier sama mag yi sama rakk yi maa ngi remercier Sénégal yëpp di remercier déjà make up parce que make bi ngeen gis ni tey euh, moo fi jaar rafet na trop nag kontaan naa ma leen wax merci leen jaajëfal bu baax a baax a baax merci beaucoup